discours bi ñu dégg ak parcours bi ñu yëg tax ñu bëgg ko ma bëgg leen seede ni du loo xam ne daf ko jékki-jékki rek dugg ci moom yàlla daf ma may man 2002 bi Abdou Diouf daanoo te ma génn réew mi bi ma dellusee 2002 moom mu soogay génn ENA ñu bokk benn unité mu nekk sama chef d'unité booba man def def naa déjà vingt six ans impôt waaye xam nga service dafa am nu muy doxe noo xam ni da ngay dem ba defe ni lii mooy yoon bi mooy principe bi nii lay mase doxe bi ñu defee ba ma yegg si jot suma affectation nit ñi moom duñ changé ah doyen Mayabé boole na la xale boo xam ni dafa reew xamul nu muy waxe respecté wul mag mais comme magum lëndëm boo ko dajul mu daj boppam te ñii di wax ak man yàgg na ak ñoom kii ñuy wax ci moom maa ngi koy soogay gis man sama yitte yëpp mooy mag laa liggéey moo nu boole mën naa ko naa def li may def du ñu seq dara maag moom maanaam ma jàpp di ko moytu di xey diko jitu du wacc bayima fa li war bala mu ma wax même mën na ko jur mais ma def ko mais yalla yalla rekay ay ki may moytu diko daw ndax bagn lin ma wax mu may apprécier reewande gan mo waxone wallahi gisuma ci leneen lu dul dal tey ak jox nit cëram bu waxee ma wax mu waxat ma wax sa munu kon doyen nan wax li nga wax par expérience ba bis mak ni ma ah xalé day dernier promotion dañ ñëwoon sama kër mais dañ la fa jëw jëw bu dañ la fa jëw ma jëw ku la doon jëw mu Ousmane wax ju ñaka jama ci tek du ma ko wax rus nako ko mu ne ma hey bu nekkon ni lu ñaaw la wax la ko netali mais dafa wax ni dafa am chance su dajeeg nit ko xamni ni dafa tracer autoroute bo xamni il travaille comme il veut mu jox ay succès nit lo xol ngay gis ci mom wala fa ko wax ma seul mu am beneen gis-gis ndegete ki may daw wallahi euh, jox na ma cër boo xam apprécié ma mais doo ko gis mais bima seul mo xol la gis ni luma wax sax du ci tek baat def ma def comme kilifa te moy sama kilifa rëy non wax billahi ma gis ci mom woyof bo xamni ni gis ci mom gëm yalla go xamanteni len leen la xamni mom lañu xëccio la mom xëccoo maag bu masaan ñëw ubi birom door bakara jëm nasi diko di tari di liggéey ma ñëw ni a ah, Ousmane lii c'est pas administratif mënu jeune jeune personne man ko at une jeune personne mais c'est pas administratif pour vous dire que li yàgg na ci mom loolu nag dugal ci man ak moom cofeel goo xam ni syndicat bii muy wax bi ñu koy defal ci comité d'initiative bi la mu dugal bokkoon na ci ñoo ko xeexandoo ñoo ko doxandoo ñu jóge fa maag moom du ñu réeroo Ousmane mii ngeen gis tey apprécier ko ba jàpp ko xale lu góoram nii la meloon masul changé yàlla rek a tax may wax joxuma ma lekk joxuma ma naan newu fi sax te yàlla mi ngi fi di ma dégg billahi ku baax la. du fen du sàcc du lekk lu lewul billahi wal sañ ñàkk ko waatal lii nag épreuve la yàlla moo xam lii am lu mu def loolu la waaye nag ñun jaam mi nga xam ni amuñu ku dul moom tey ay mag sañ nañ ko ñaan xam nga lu ñu koy ñaan jox na la boppam mu ngi subir épreuve amul doomu aadama mbindeef bu ci mën dara yow yàlla kese yaa ci man ñu ñoo lay ñaan yëkkati kook jàmm delloo ko kàttanam delloo ko sagoom delloo ko ay soxnaam delloo ko espoir bi nga xam ni xale yi nga xam ni moom lañu yaakaar yow yàlla jaaraleel ci yoon bu dara tuulu bu kenn fakkastalu jëlal réew mi teg ci loxoom Ousmane nag nit rek la yàlla mooy dogal yàlla mooy def yaakaar gi ñu am pour Sénégal baax suñ usmaan Ousmane nañ ko jël teg ci kawam dañu bëgg yàlla jaarale ko ci loxoom te xam na ni am na nu xarañ bi am na xam-xam am na yéene bi yàlla na yàlla rëkkati réew mi teg ci loxoom bu ko ci tegee yàlla na ko booleek ñu dal yàlla na ko booleek ñu xarañ yàlla na ko booleek ñu am xam yàlla ko booleeg ñu mën ñu bokk ak moom yéene ñu defar réew mi képp koo xam ni ngay jabar di doom di jarbaat di xarit di am di jàmm ngeen bokk parti yaa ngi ci yëngu tey yàlla ëllëg nga tëdd salal yow kenn kese sa borom ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla li doon doon yàlla def na ko yàlla na ko yàlla may gudd fan may kéwér waaye nag la mu yéene Sénégal ci jàmm yàlla ko yàlla xëpp ci njabootam. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Euh, pour ñu comprendre bu baax a baax lii pembutu tey lu ko waral parce que loolu dafa am solo te moom nee na ñett ñett ñett yëf moo ko téye d'abord gëm wóolu yàlla benn ñaar gëm projet bi ñett wóolu askanu Sénégal. nee na loolu rek moo ngi ñëw moo ko soxal te loolu la mais man suma gëstu dafa ma war ne eh, Ousmane ci boppam boo ko toppee yàlla moo koy préparé ba fii Ousmane nekk na étudiant ndar xam nga vacances bu ñëwee lu ñuy ku ne da ñibbi sa sa dëkk day toog day dem louer chambre saint dem jàngiwaat alxuraan

les plus grandes écoles du Sénégal yàlla ubbi ko buntu mu dugg foofu muy ENAM bu ko inspecteur des impôts mais ma inspecteur des impôts inspecteur des impôts 30 ans fiscal mais dexu dexu xaalis la dexu xaalis <laughs> dexu xaalis la mais déedéet bu buñ ko yàlla yàlla moo téye loxo Sonko yàlla ko téye ku ko jox mooy duma ko laal yàlla moo téye loxoom ku ko jox mooy bëgguma soxlawuma boobu am na yàlla lu mu nam si moom lu am importance la yàlla téye loxoom gënuñu ñu ma fa nekkaloon gënu gën mais yàlla am na ba mu koy jàngaloo alxuraan ndar ba mu mokkal ko lépp indi ko impo bi nga xam ne xaalis doomal la dañ lay korom guddeeg bëccëg dañ yónni awlab sa kër yónni ki nga lu mu wax mu bañ yàlla moo téye loxoy Sonko mu def fa syndicat nag taxaw fa Sénégal lu mës am ci Sénégal mës am ci impôt parce que fa laa liggéeyee mësuñu xam luy syndicat ko foofu c'est le premier moo samp syndicat ci impôt et domaine na laaj nag waa impôt domaine syndicat bi lu lan na leen jariñ donc booba yàlla pare na ci préparé ko ba pare léegi nag épreuve yi moo ci des mbugal dugal ki teg ko coono épreuve yi moo des mu dajeeg président bu ñuy wax Macky Sall ci ci ci liggéeyam ak bëgg lu leer mu de ñu dem benn conférence benn samedi d'économie ñu jox mu wax fa ne assemblée nationale dañoo fay ñu impôt da koo xam ñu mere ko ci loolu déedéet yàlla moo koy commencé épreuve yi foofu Moustapha Diakhaté si ñu wax tey mu nekkoon président groupe e mu ne ma kii dañ koy dàq nañ ko dàq nañ ko dàq sax ñu dàq ñu dàq ko mais Macky dafa lu muy exécuter décision divine il faut y comprendre l'eau le commencer et puis il commence et puis il commence et puis il commence du après 15 ans de service y ait du alors vous le béyee il y a ko mi il mi ngay le ba xam est-ce que ko mat di il ko man di créer parti euh, bi mu créé parti 2014, dem élection législative ñëw na je mi ak man ñoo bokk parti ñu ngi tuddee askan wi ñu ànd ak ñoom ñu def coalition tuddee ko yi ndawi askan wi def ko tête de moom ma jëy dirigeant parti bu ma wax yoon askan wi mouvement pour populaire ñu ànd def campagne Guy mari Sagna moo nekkoon directeur campagne boobu 2017 ñu campagne campagne campagne ba yàlla def li mu def mu nekk dugg assemblée national def li liggéey mucc foofu la ko yàlla di wonee nag parce que jusqu'à peu xamuñu ko mais yàlla nga koy def ay nat yoo xam ne da koy da koy da koy muy dem di dem ñu gis ko comme ci assemblée liggéey bi fa liggéey bu hein, élection 2019. et la ne ko ci élection législative dafa néewoon alors ba mu ne damay dem président ah kii nañ ba kii du dara du mais encore ci beneen coalition tudde ko tudde coalition son co président c'est-à-dire que musul dem musul dem élection ci hein, coalition lay démé lu xew mu am 15,7% de l'électorat présidentiel ñep ñep waaru na ñëpp ko kooku loxo la troisième Macky jiitu de seeg topp yi moom mu topp ci ki 2014 rek la def léegi senegal yëpp yàlla ne waa jaa ngi nii ñëpp tam ko yàlla ko def ñoom nag loolu def leen a daf leen metti lool te ñu fàtte yàlla élection yi passé élection locale yi ñëw mu def campagne mu mucc ayib léegi am na maire yu ne gañ gañ ba léegi sax gaañ yi bëri si maire yi di boo demee dèjà am na maire yoo xam ne ñu ngi ci ay maire maire maire yoo xam ne peuple bi moo jóg wooteel leen

mu dugal ay député yu jeex bien que dañoo daggoon bopp yi moom moom du bokk <laughs> alors loolu aussi lu am maanaa la donc am na expérience yëpp benn rek moo ko desoon mooy fee mu nekk kaso ah loolu lan moo ko waral c'est-à-dire que bu demuloon kaso dañ ko mën chantage ñi dem kaso ba léegi dañu yow maanaam dem naa ko si yow mosoo kaso yàlla defa ma dafa xarala kasoom bii loolu la ko duggee mooy bu liggéey kenn du ko chantage kenn kenn du ko chantage parce que dem na kaso dafa jaareel ba ci biir kaso bi wane na fa loo xam ne jàmbaar fàkk tëdd la waaw ku def vingt teel vingt deux ou vingt troisième jour vingt deux jours moom naal gàcce ngaaraamam moom matal na lépp ëllëg kenn du ko nag de waaye bul ma jaay yow xamul sax luy kaso jeex na boobu jeex na tëdd na kenn du ko chantage si kon nag nañu sant yàlla te li ma ci li ma neex rek bi ñu présenté ñëpp a ngi fi. soxna Khady Ngom ma ca Ziguinchor ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax lépp moom la tubaab dafa ne l' avenir d' un de sa mère. te muy lu dëggu nag gis nga Ousmane mii bilaay c'est l'œuvre de sa maman yàlla ko yàlla fal cet ñi ngi koy ñaanal yàlla fa mu nekk te Ziguinchor di muñ nag ndax ñun ñu ngi fay waaj demaguñu fa waaye ñi fa jot a dem alhamdulilah ala kulli haal ba Ousmane Sonko doon wax alhamdulilah bi nga xamante moom la sàlloo dénk yàlla Ousmane saalitul benn yoon. xam nga nit di nga yore benn façon di ko def ci benn côté muy dox di dem fu sori foo xam ne sax yaakaaroon dina fa yegg mais lu mu nekkee Ziguinchor rek ñu ngi koy yëg te yëg-yëg bi yëpp mooy nangu nag dogalu sunu borom kon yal na ko yàlla gën a kantanal yal na ko yàlla gën a dooleel yal na yàlla def muuram ak wërsëgam ci doomam ci yéen ñi fii nekk ci biir kër gi nag ñun gërëm leen am nañ ci droit. ndax seen borom kër moo leen njëkk a gërëm moo toll ca Ziguinchor ne maa ngi gërëm sama ñaari soxna yi comme nag gërëm na leen ñun am nañu droit feelu ci te it gis nañ ko nag ndax 2014 ba tey ñu ngi ñëw ci kër gi ñi leen xàmmee sax bariwul ndax discrétion ak toog seen ruq ñun toujours ñu ngi fii mais xàmmee leen lu bari de lu ngeen di dox rek ci ci farata kon yàlla na yàlla sàmm leen. yalla yalla moy len leen xulu muñ xam nak après la pluie rek c'est le beau temps inshallah li jaar-jaar la rek yalla ko yalla na saxal nak yalla bu yakar tas ci Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko li ñu yéene ci mom yakar ci mom au-delà même du Sénégal toute l'Afrique et même le monde entier tout le monde parle de lui kon yalla nako jik jik ñun nak nga xam ne ñun moom mooy sunu yaakaar nag. na ma ko waxoon keroog ca bi ñuy installé magu Pastef ma ne ko gannaaw yàlla yow la ñu gëm ci defar réew mi yàlla nañ ci yàlla yàlla rus ñu baax ñi fi ne. yàlla na yàlla rus Seydina Mohamed ci usman Sonko yàlla yàlla ruus turandoom ci sëñ Ousmane Sonko sëñ Touba ak maam El Hadj maam maam Limaamu Laay borom Kaolack borom Canaba borom Cambérène borom Medina Gunaas yàlla na yàlla rus ñooñu ñëpp. sagal ñu ci Ousmane Sonko yàlla bu mu jàq yàlla bu mu jàq ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla yàlla may leen gudd ko fan yàlla barkeel seen diggante barkeel kër gi barkeel njaboot gi yàlla bu ngeen gis lu ngeen ragal yàlla nañu bokk ak yëpp yéen ñëpp ci bànneex bi ñuy séntu yalla doon jàmm. yontu yàlla Yuusuf ba mu nekkee ci kaso ba bëggoon a génn yàlla namagul mu génn mu téye ko fa xam yàlla bu namoon mu génn day gaaw. mais ca ñaar ñam fa nekk ndool kenn moo dem ci buur ba ca juróom-ñaari atu bekkoor yooyu ak juróom-ñaari atu naataange mu ni leen kama bokkaloon kaso daal ko moom mën na firi mu firil ko buur bi ñu jox ko économie bi mu yor nguur ga donc yàlla ay mbiram day am nu muy jaaree day commencé jafe lool ñun ñii ñëpp du ñu nett ci suñu mbir mais ñun ñii ñëpp jaar nañ ci donc moom noonu la jaaree la ma waxoon soxna yi rek mooy nañ ko yàlla ñaanal yàlla muccal ko fa mu nekk noonu parce que yàlla rek moo ko mën a muccal yàlla na ko yàlla muccal ba mu dellu siwaat ci njabootam beneen bi ci des mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi mu ni nit du gëm mukk lu dul ni li mu yéene boppam la yéene moroomum jullitam loolu la xadis boobu di tekk mais ëpp na loolu tekkiwaay bi kay def lu bon ak di yéene nit lu bon foo koy dugal ci foofu mooy gëmul noonu ngay déggee rek parce que dafa am firin dafa am déggin moo tax ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla may dégg ak topp bi mooy mujjee nag mooy ñu war a bàyyi xel ci benn aaya rek laay génn nii wa yawma yurja'una ilayhi loolu boo ko déggee rek mooy nit ki indi nañ ko ci kanamu bàmmeelam parce que yurjawoona ilayhi mooy yow yóbbuwuloo fa sa bopp dañ la fa yóbbu nit ñi dañ war a bàyyi xel bis bañ leen di delloo seen borom mu yow ma yurjawoona ilayhi ci sa borom wayu nabbi uhum naba a mooy xabaar bu rëy nabaa a foo ko dégg rek mooy xabaar bu rëy wayu nabbi uhum bi ma amilu yàlla dana leen xabar lépp lu ngeen doon def ci àddina ndax lan inna allaha bi kulli shay'in alim yàlla lépp la xam wuutewul dara loolu nag ki bàyyi xel alaaxira mooy ànd ak ngëm ak njub hmm, daan naa faral di wax doy la ma ne ko président Ousmane Sonko mbiram neex na parce que mi ngi tegu ci aaya yàlla inna lazina amanu wa amilu saalihaat wala nga ni ina lazina xaalu rabbuna allah suma staqaamu ki gëm yàlla tegu ci njub suma staqaamu mooy nga tegu ci njub wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun kooku du tiit te du jàq moo tax ku ngeen gis mu mel noonu rek strict nii defal defu ko boppam mais yàlla la àndal ci biiram moo tax muy doxale noonu bu doon ñun suñu maas gi daw nañu bu yàgg dimbali leen moom a génn fii donc yàlla na yàlla sàmm ko te aar ko. mais ñu ngi leen di ñaanal ngeen gën a yokk muñ gi te gëñ ko ñaanal rek donc euh, damay euh, dellowaat imam Touré. yàlla mi ñu tàmbalil gëmloo ay millions des millions de personnes ci benn jëmm muy président Ousmane Sonko. yàlla moomu li ma gëm mooy du tas yaakaari millions yi doomu adama yooyu parce que moom moo ñu gëmloo Ousmane Sonko mais ñun mënuñoo gëmloo suñ bopp Ousmane Sonko Ousmane Sonko Afrique dañ ko yaakaar parce que Ousmane Sonko héros la dama ko xeeb ci senegal ku yàgg a dégg suma wax danga dégg ne xeeb naa Ousmane sonk ci Sénégal redresse Sénégal capacité am passé na loolu dafa am lu yàlla di jël daan ko dugal ci biir dënnu yonent yi maa ngi wax ci contrôle imam bi bu yonent yi jeexee mu koy muy jël ci loola di ko dugal ci ay jëmm yu ko soob muy faasu wëliyu parce que ku jàng euh, yonent di nga jàng wëliyu ci biir alquran loolo nag daf léeg-léeg daf ciy jël di ci dugal ci nit ko xam ne moom yàlla moo koy prépareel kooka daf koy indi pour mu defar société bi yàqu-yàqu jikko yi am ci société bi mu war ko ñëw defar ndax Seydina Omar daana wax ne yàlla dina jubbanti ci boor loo xam ne yonent mënu koo def Mata tax boo bu ya yaay elif ñepp ñi ngank diine ba sax yow yow mi jité réew ma yow yaa leen di elif loola nak ñun mom la ñu gis si Ousmane Sonko preuve bi bi ñu yàlla di njëkk wan mooy lo nek 15 ans ni Sénégal mel impôt et domaine dugal ay milliards milliards trésors nga taxaw devant le peuple nga ne quinze ans musuma jël benn dërëm bu ma moomul te képp ku xam ne xam nga ne jël naa benn dërëm bu moomu moomul ñëwal nga wax ko devant le peuple Senghor mos naa ko ba Ousmane Sonko di wax loolu diggante boobu musuma dégg nit ku liggéey ci nguur ku taxaw wax loolu. ba ko Ousmane Sonko waxee ba léegi fii ñu toog nii ci saal bi ba léegi musuma dégg nit ku ko ñaareel moo tax sunu bakkan yi lañ ci teg fu ko yàlla yemale mu neex ci sunu bakkan yi parce que yàlla mu yore sunu dund ñun yorewuñ sunu dund waaye Ousmane sonk li ma gëm mooy cinquième président de la république incha allah loolu laa gëm kenn mënta muusa ko waaye nag man ba duma gëm loolu ñëpp it loolu lañ gëm soxna i dégg nañ seen vidéo bi ngeen doon def ak Pape Alé waaye ñu ngi leen di masuwu coono te di leen rek dénkaan ngeen gën a muñ comme ni seen borom kër di muñee taale min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa salihina wa usna ulaika rafiqa zalika fadlu min allahi wa kafa billahi alima ihdina sirata mustaqima sirata lisina anamta alayhim xayri almaghdubi alayhim wala ddalin amin allahuma unsurna fa innaka xayru nasirin allahuma unsurna fa innaka xayru nasirin waftalna fa innaka xayru fatihin واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الراسخين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الصالمين واهدنا ونجنا من القوم الصالمين اللهم يسر لنا أمورنا ما رات لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك didn't. بيق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناس إلى بلاق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره مقدار لازم صلاة تفتح لنا بها النجم والخيرات والأرساق والأموال والخنا والعزة والكرامات والفضيلة والبركات والأسرار والأنوار والفيود والأمداد ورضوان حلينا صاهرا بات في الدنيا والآخرة وأسبال حلينا سترا سابقا دائما مع سلامتي والعافية والأمنية وسعادة القصوى في دارين وحسن القتام في جميع أمورنا وأهوالنا ونريد أن ساهرا باتن في الدنيا والآخرة إن الله ملائكته يزلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم بلغ ثواب هذه التسليم الكريمة هدية للنبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب